you jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo di la wax ne ne comme ni ko Baye ji li waxee bàkk ba jëbati na générique ba tàmbali na tey ñëw seet si ndaanaan bi nga xamante ni kenn doot ko présenté ci làmb su mu nee Brise de Mer xel yi dem ci yëngu-yëngu géej wala boog euh, li nga xamante ni ci géej lay jógee waaye Brise de bi mbër la tey nag ñëw seet ko fii nga xamante ni nii mooy Yoff booy waxtaan ak moom ci làmb ji jëm booy waxtaan ak moom ci carrière ndax ñu bëri gën nañ koo gis su ma juumul depuis combat moo euh, ndem si yàlla si nga xamante ni ni mooy Jules Baldé Junior ñu koy ñaanal fa mu jëm gën la ko fii mu jógee hmm? ñu bëgg waxtaan ak moom Brice nuyu naa la waaw suma waa ji fay naa la di nuyu Sénégal di nuyu monde entier di nuyu waa waa Grand Médine waa Virage di nuyu waa Kaffrine waa Touba waa Thiès ñëpp maa siyaar bu baax di waa Arafat parcelle 1 ba 26 comme ni ko gars yi di waxee di nuyu Sénégal yëpp di la nuyu bu baax di nuyu sa waa ma àndal ni ñi nga àndal di nuyu waa salle bi waa club fighting box di nuyu Reda nga xam ne mooy coach bi di nuyu waa salle bi yëpp di nuyu suma waa écurie di nuyu bi Yékini Junior di nuyu grand Fadal di nuyu booy fa nekk ku lim juum bépp leader bu nekk équipe Dóor waar maa lay nuyu voilà. ñu gis la équipe Dóor waar su ma juumul parce que la nekk. Oh, Grand Médine Grand Médine waaw Grand Médine la nekk mais na moo waral teewaay bi fii nga ñëw ba immeuble indien yi man bi ma ñëwee fii dafa mel ni sax ku nekk États-Unis wala ku nekk beneen dëkk boo xamante ni bokkul ak Sénégal. waaw comme li ñu naan làmb boo fi nekkee da ngay làmb rek. Mm-hmm. ba bis ba ngay dajee. yàlla defoon na ñu nekk si yoon bu neex. amuñu defet xamuñu ko woon yàlla def ñu tegle ay defet amaat victoire tegaat si defet waaw kon bu boobaa war nañuy làmbatu jiwaat làmbatoo ñu indi fii rek yàlla def ñu boole ñoo ko euh, coach bi nga xam ne fii moom macha allah dafa làqatu mun naa ne sénégalais yi fi entraîné yëpp maa leen fi indi wala waaw ñu fi des ñëpp ay ay ay ay ay ay kii lañ ay étranger lañ waa et tamit yàlla def ma gis ci coach bi ay qualité yoo xam ne nii daf ma préparé woon sama combat ak Jules Balde Junior. ma def meilleur combat def combat bu neex combat boo xam ne nii waaw yàlla def na defet am na mais kenn jéppiwu ma. parce que bu dee koofur li làmb di laaj yëpp indi naa ko yàlla def li gën ñu santee ko yàlla te xam ne fi nga tegoon sa loxo macha allah ma ñëw dàbbaliwaat yokkat leneen li ma doon liggéey pour gën a waaw gën koo téye daal. mais avant ñu ñëw doo nga diw wala nu mu demee damaa gis ngay siit nii affaire bi la. waaw entraînement yi rek entraînement yi rek. wallaay ansim su ma la waxee dëgg rek te yàlla tax waaw depuis suma combat bi taxaw nii. ba léegi aw ma jàmm maa ci si entraînement matin soir waaw parce que tamit gor laa te ama am na loo xam ne jigul gor gor bugg ko maanaam defet man mosuma neex yàlla def na ma am ko te am ñu nekk sama ginnaaw. Mhm. nekk ñi nga xamante nii dañ ma bëgg te yàlla tax. jàpp brise de mer bëgg brise de mer. Mhm. kon normalement dama war a liggéey daal liggéey rek a ma war dama war a liggéey lu métti. billaay walaay te des na sax dinaa gën a liggéey lu gën a métti ba bis ba su ma simee ko ñëpp xam ne ni kii liggéey na yàlla def na loolu. mais comme bi dafa taxaw daanaka sax saison bi tijjeegul nga bëgg ko tegee nga bëgg ko enchaîner nii mais est-ce que après du am lu mu lu mu lu mu bëgg parce que su jumul amagu leen dat. waaw amaguñu dat mais yàlla dafa def tey euh, ki ñu ki ñu yor mun na préparer nit nit ñu nekk bu fekkee tey ñun danoo nekk ci loxo yoo xam ne nii. xam na ni ñu préparer nit xam nga maintenir forme am na. Mm-hmm. préparation nit koofur doole yooyu yëpp am na. Mm-hmm. waa suñ toll nii dañuy maintenir rek di liggéey pour xama préparer yeneen yi ñëw waaw pour xam ne lii ñëw duñu ñu bett quoi. waaw fi toll nii xam nañ ni ñuy meññee yàlla def na technicien moo ñu yor ku ku xarañ si wàllu sport moo ñu yor xam na ni ñuy raayantee ba ñu maintenir suñu forme ba xam ne nii duñu ñu fatigué du ñu sonn te dinañ yor suñu pois ok mm-hmm. ñoo gis Brise de amoon na benn alire boo xamante ne allure bu extraordinaire man bi ma lay njëkk a seetaan su ma juumul maa ngi lay seetaanee mbappatu église su ma juumul boo ci bàyyiwul xel Garga Mbossé moo bëgg grand combat bi yaa bëri spécial bi maa ngi ñu fekk yaa ngi takk ngeen mu takk ay gants te donte du bëri dóor su ma juumul war ngaa fàttaliku loolu su ma juumul Garga moo tam ak troisième combat am euh, invité kii bokkoon na ci Bruxelles nga ñëw def combat bu gaaw ma ñëw bi ma ñëwee bi ma la gisee xamuma la mais style bi daf ma peut ay tim nga sol. def ngemb takk gant li may wax ni yàgg na. waaw yaa ngi yaa ngi ci làmb nag. yaa ngi ci ah. làmb parce que tey comme comme man damay sawar di waxtaan ak koo xam ne nii. Hmm. day ma topp ci mbapat. waaw parce que boo nee combat boobu rek ba nga ko waxee rek la laa xam ne nii dund nga làmb. Hmm. waaw te boo dundul làmb mënoo ci waxtaan mënoo ci xóot. moo tax ma sawar waxtaan si yow ci wàllu làmb. Hmm. li nga wax noonu. Euh, man sama style man yàlla dafa def. même bu may bu may bu may bëree mbapat sax yàlla dafa def may indiwaale samay feem yoo xam ne nii day bàyyi day bàyyi nit si man. maanaam day attiré ay supporters ci man. dëgg la waaw damay ñëw xool dàll yi nga xam ne ni tey boo ko soloon ñu ne nii dàll yi day sarse sa tànk yi ba waroo koo bëree jee man ma sol ko ñëw ko si làmb ji di sport. wala ma dugg si di def ay soo maskanaar yi nga xam ne ni tey dañ naan kii bu pare tànk yi day soo ma wan gaay ne man li ma liggéey si suuf si laa dëkk li waral brise de mer du hasard man dama liggéey si suuf dama entraîné ba wow. man sama combat musuma sumeeku ñu ne booy bi entraîné wul waaw mosuma dem ci combat ba wane si ñu fatiguement wala affaire yooyu noonu damay liggéey lu métti parce que xam naa ne man mënuma am combat bu yomb boo gisee Brise de Mer nekkoon ci alerte bu neex tegle ay victoire jékki-jékki wàccaat man mosuma jël combat boo xam ne dañ naan combat bi Brise de moo ko man dañ naan combat bu ma jël la ñu ne kii moo man Brise de Mer wala combat bi da koy rey Brise da koy rey wala dañ koy day day daan Brise man combat yooyu laa sawar di jëm ba ma nekkee écurie Ndakaaru nekk si ginnaaw Yékini nekk si staff ñoom père kat yi père Mbaye Cissé te Youssou Dieng ndoom si yàlla si yàlla na ko yàlla. ngeen baal ñu ko comme ni ma koy waxee rek boo gisee ñuy développé di commencé fi nga xamante ni ci ginnaaw la parce ñu ci bari des dañuy réer mbër parce dañuy xool combat bi mujj rek ñu bëgg ko jàpp foofu dama leen bëgg a wax ne kii ma dalal tey ndaanaan la kii ma dalal tey champion la su ma nee bëri naag booy ñaa xel yi war naa mën a dal su ma nee bëri naag ki nga xamante ni mooy rëg rëg ngeen mën a xam ne ndaanaan la su ma nee nekk si ginnaaw ni tey booy jox boo jëlee benn écurie tey benn écurie Fass wala tey Rock Énergie wala benn Pikine wala feneen wala Guédiawaye nga jël fa benn mbër boo xam ne dafa topp ci côté ci ginnaaw euh, euh, mbër bu mag ba fa nekk. si mhm. booy yi boo ñëwee sa xel ci Brise de lay nekk. avance bu dugg écurie Ndakaaru bu dee avance bu ñuy laam-laamee ñu naan dafa métti man maa koy jël avance ba ñuy jël booy ñaa booba booy ñaa defagul lu bari mais booba gars yi bàyyi nañ ko xel. ma ma jël ko. jël baay pël bu rock est ci mbiis ba mu la daan mbiis la daan waaw ah, yaa ngi wax si làmb nag boobu mbiis la daan ba mu daanee fekk ma daan bu ci dugg bu mbuur waaw ma dëpp jël ko mu daan ma ma jël bu bàyyi bu rek énergie. mais lan moo nga jël ko nga rawoon ko ci làmb. su ma juum yaa ngi woon ci cinq combats mu bëri woon deux ou waaw parce que booba man xam naa ne kii am na làmb fu muy toll foo xam ne nii. kii boo ko jëlul léegi di nga ko jëli feneen te fa nga koy jëlee mooy gën a métti léegi. te booba jamono jooju noonu xamoon naa ne man jamono ji man maa man Boy Niang maa ko ëpp doole. mais nga mën ko. bi nga ñëwee bëreewuloo xeexuloo. waaw làmba mel noonu moo tax làmb dafa yéeme ba ma ñëwee bëreewuma xeexuma boobu géwél yi def seen manin. déet bàyyi leen loolu Boy Niang ku fi bëree daan na ngeen ñëw naan géwél def seen manin. mais géwél yi ci biti la ñam tëgg ak lañ mën. waaw mais tëgg ak man tey boo xoolee cadre làmb géwél ko ëmb cadre làmb géwél ko ëmb géwél moo jiin géwél moo lay wëy géwél moo yor microcentral bi géwél moo lay dalal daa jox ko mu jinn sa xol gën a seet ba pare ji boo xamoon tey ci la ci biir làmb ba géwél bu lay tëggal day tojal mbër ok géwél bu lay jiinal nga xam ne da nga ñëw tàllal sa sengoor am na galan yoo xam ne bu la ko tëggalee yi nga takk si galaaj yëpp day toj baa am moo tax géwél boo géwél jar nañoo fonk ci làmb bokk danoo bokk si làmb su ma ne moomuñ ànc comme ni ñu ne séeréer cosaanu làmb géwél dafa bokk si làmb géwél dafa nekk loo xam ne nii si si si làmb maanaam mooy cosaan mooy cosaanu làmb suñuy làmb ji lu ci am base ok moo tax booy géwél booy bëree si làmb ji bëgg nga dem faaw nga nekk ak nii géwél yi parce que mënoo dem bàyyi géwél yi géwél yi dem bàyyi géwél yi def seen manin du ma yeggale parce que tamit wax bu yegg yaa ma gën a xam bon ma ñëw sama bàkku dañ koo dagg fi may teg sama cumbukaay dañ koo dagg. da nga ñëw ñu ne tey doo fi tuusee fu may échafoo dañ koo dagg. yaay dégg ba ma duggee si biir en tant que grand combat fi may bu may duggee si biir lamb fi ma war a sottee ko bi nga ñëwee ñu arrêté la sa touche nga war a ñëw bàkku ñu ne doo fi bàkkoo yooyu noonu te nga jiitu Boy Niang ci làmb nga ñëw loolu yàq woon xañ mais nga ñëw mu xañ la ko après mu def la nan avant làmb ji nga ñëw yooyu noonu nga woon def def loo ko te ngay bëgg daanaan boo xamante ni bu tuusee mu neex balaa làmb ji moom day day toj stade bi moom nga ñëw moom mu tuus tuusuloo mu def la lan waaw booba jour boobu def da ba may bëree Boy Niang maay star bi maa dàqoon bëre maa ëppoon doole maa gënoon a nekk si làmb ji pare maa du maa maa yoroon làmb ji daal waaw parce que booba ku xool sama jaar ci jaar fi ma jaar ak boo Niang fi mu jaar nga xam ne ni tey bu ma ñëwee man bu ma feccee mu neex bu ma bàkkoo mu neex bu ma bëree mu neex si man lañ ko doon xaar parce que booba maa ngi jaar si maa ngi jaar si amasiga bu école din maa nga dë jël tas yaakaar Iba maa dóor ko mu daanu jël bu si dugg bu mbuur daan ko waaw waaw jël euh, Tyson gin gi neew boo xam ne mu koy jël 4 kaaw la tegle dóor benn mbër bu nekk suñu écrit mu daanu ma jël ko ñu naan booy bi day fontu ma këpp ko ci biir dëkkam Kaolack ñibbisi ñu tëggal ma sama combat booy ñaar yàggul dara kon boobu lu bari si man lañ ko doon xaar mais nag na mu te yàlla mooy mooy kii combat boobu noonu am na ni ma koy expliquer sax bu jaaree yoon dëgg bu ñëwee bu ñëwee ba abi sifflé ngeen lëwaatoo boo ñaa cokkaas la dama coppet daw jël la da ngaa naagu foofu waaw jamono jooju fi mu jaar ci man ki ko ëpp doole dàq ko bëre dafa daan jaar ma génne ko daan ko jël rey rëy billaahi wallaahi. muy kan. boo ñu ko dàq bëre ma nekk ak sama ma xamoo Ikine lu ñu mayoon sens ay ndaanaani séeréer rek nga fa doon gis ñu tëj ñu tëj àddana Senghor ñu tëj làmb séeréer rek nga daan gis ku si mel ni ñoom Youssou Ndour ñoom Jama ñoom Mbagnick ñoom Laye Ndiaye nekk fa Ndakaaru dafa complet woon ñoom si Junior ne fa xama ay ay ñoom Malick Niang dafa complet woon quoi tey boo doon préparé benn mbër tey mbër bi nu mu mëntu mel di nga gis koo xam ne boo ko paree ci moom da nga da ngay bëre ak moom yàlla def nag loolu suñu suñu biir ñu pare woon combat ama mm-hmm. combat boobu noonu man man ba ba may tëdd ba ba may tëdd dama ne Boy ñaan nii laa koy daanee wala yansi bi biñ ne suba la làmb ja bañ ne suba la làmb ji dama ne Boy ñaan nii laa koy daanee mu daan jël bu rëy. jël bu waaw non nañ ñëw nañ ñëw nañ ñëw ci làmb parce que làmb ji dafa bëri ay kele te lu mu def dindi nga ko lu mu def dindi nga ko mais dañoo gis ba tey moo moo moo gën a moom moo gën a favoriser wu ci làmb ji. parce que moo daw jël la daw ñuuxu la roof la nga teggi mu daw bët ak yow mais lépp yaa ngi yaa ngi ànd sa sago di def muy def ngay dindi muy def ngay dindi mais lan la da nga yaakaaroon boo ñaa amul doole yaa ko ëppoon wala la. waaw parce que tamit nag booba bu dëgg rek neexee yàlla moom na ma woon man suivre wu ko noonu. bàyyi woo ko xel non booba des naa ko xam mais ndeke bëree mu ngi ci moom mën na bëre gaaw na technique na te bu jàppee du bàyyi ba mu duggee sama wet dama reetaan parce que côté bii nii nii. donc mu ne kenn mu kenn mu si dugg daan ma jël boobu noonu mu tuur ma def trois appuis xam ne damay jëlaat mu tuuraat ma xam ne loolu daanu ma békaay boo déggee mu naan daan na ko daanu ko mu tuuraat ah, ma xam ne loolu ci ba ba léegi si ay këpp nii bu doon këpp rek këpp kese kese du ma ci daan mais ba ma déwee ba siggi yóotu ngeen jotuma ko ma ne xaaral ma génn nga xam ne su ma siggee bu bu dawee bu dawee song ma génn géew tànk baa ngi ci biir mu dëbb caxabal léegi mu dëbbee caxabal ma teggi caxabal bi ah. ndeke tànk baa ngi fa des samay wàcc teg sama tànk amatuma équilibre si laa toogee boo xoolee bu jëlli bi génnee dama njëkk a reetaan hmm. parce que xam naa ne am na lu bari lu nekk ci combat bi loo xam ne mënu ma ko wax doomu aadama kon su ma ko waxee rek dañ na dama saalit te saalit jigul gor non mais foofu est-ce que da feeñ na fa tamit lu bari loo xam ne nii làmmiñ du ko laal wala yansim mais nag lu feeñ ci làmb ji waaw suñ ne tey Brise dama naan ku mën a bëre la Boy Niang mhm. ku tactique la daan na ma jël bu rëy sportif noonu lay dundee mais su ma si tegee leneen rek danaa ko dund sama biir mais su ma ko waxee rek salit mais après nga nekkoon bë moo xamante ni yaa ko ëppoon buzz yaa ko ëppoon coow maanaam ñu si bay bi ñuy ñëw yooyu lañ gënoon xam ko moom mun daal la dugal la top 5 nga dëpp dem toog sa kër seetaanaat làmb ji. tegaat si beneen combat bu ñëpp di daw muy bàyyi poul bu rog énergie booba si Ama Baldé la génne Ama Baldé daan ko Ama Baldé daan ko man booy ñaar daan ma ñu ne ñaan nañ xool nañ seetaan ñaari booy yi ñu bari delloo seen avance. ma jël ko daan ko jël wu rëy Demba Diop. yaa ngi dégg mu joxa ñu joxaan ma Amet Dem Tiwaawoon ma bëreeg moom combat boobu noonu ba léegi amul benn teg benn télé bu ko mën a génnee ko xeex ak moom xeex bu combat bu amul site ba léegi. ba mais moom moom lañ jox victoire parce que wër na mu ndomba. gars yi lamp courant courant bi coupé. ba ay projecteur ak ay Tmax lañ taal pour mën a gis combat bi. après site am ñu jox ko victoire ma dem mu dem après coolul xale laa te li sama kanam moo daw nekku ma fi di débat ma sol sama ngem. gaa yi tamit Pape du Fall tëggoon lamb jooju. Fall tëggoon gaa yi toppoon sama combat tamit xam ne carrément brise de mer mi li si kanamam moo ëpp waxuñ fa nekkul di di man supporter yàlla waaw yu mooy loolu. li supporters yu baax la ma yàlla sédd ñu ànd ak man ñibbisi ba ma ñibbisee jël ay naaru sokaas booba mu ngi arrêté ay ñoom caat booy bamba dañu arrêté ay Lac Rose nekk ñu ñoom a risque nga jël parce que booy bi day arrêté ku amul defet da lay nii ma ne ko dama koy daan. moom tamit daa yàgg ba gis maa gis mu jël Jackson jël na ko bu neex waaw ma ne ko taral jël bu gën a rëy si làmb ji moom laa ko daan. top 5 ah, sokaas waaw daan ko ñu jox ma rëg rëg ay rëg ay affaire yooyu noonu mu daan ma ma jël 55. lan moo tax nga dugg yow lan moo tax lan moo tax doo def yi gars yi def tànn yoon yu nooy yi pour mën a teggi wiir yi loo tax nga bëgg di jël fekk booy naan ñoo fa gën a ës nga jël leen loolu moo ma bàyyi si làmb tey loolu moo waral tey Brise de Mer suñu ne Brise de bu ñu ko tëggoon amateur yi njëkk a seet feesal làmb ji supporters yi dénk maa la wax lii bu ñu ne tey amateur yi ñooy njëkk a feesal làmb ji que supporters yi parce que man tey yàlla dafa ma sédd ay mbëru ama ay ay ay supporters amateurs yoo xam ne ni ay amateurs làmb yoo xam ne tey waaw dañuy dund Brise ay ndaanaan yoo xam ne dañuy bëgg làmb dañuy dund brise parce que xam na benn bu dee bëree da nga koy gis jom danga koy gis fulla da nga koy gis dangay gis làmb lu yàlla maye ma santee ko yàlla dem ñibbi mais damay bëre damay xeex damay def lépp mu bàkkoo mu neex. nga ñëw jël nga ñëw jël Reug Reug. mu ñëw ñu ne woon ñëpp ne woon pour biir demee génn ci il faut que mu xeex ak moom mais nga ñëw takk abi sifflé nga lewaatoo cokkaas mu dóor lu kuubu daal nga daw génne bi nga dellu si waatee lan nga xalaat. bon ba di nga li ñu naan xam nga boo xasee pe boo xamee boo xasee wàcc yoonu làmb pour nga tegwaat si yoon bi day difficile parce que jamono jooju booba maa jël naa Reug Reug pour ñëwaat ci làmb mais booba nekkaguma sama yoon léegi pour ma ñëwaat ci làmb ak xelaat yeeg ay nan lay defaat bu ñëwaat ak nan laa war a bëree xam nga mu par rapport ak mbër bu osé wu mbër bu toog ci ay victoire xam nga sëriñ yi di la tegtal nii affaire yooyu noonu man mosuma xaar ñu ne ma naa xaar Reug Reug ma xaar ko mu ñëw toog sama kaw mhm. dóor ma kuu dal ma génn la lang gi ñëwaat taj bi mu ne dóoyoo ko ku moom ñëpp xam ne ne dal la bi mu la dalee bi mu la dalee rek. dama génn dama génn automatiquement dama génn mais ba ba ma ba ma dama ñëwaat. ba arbitre suuf la waatee sa xel génnul ci man ñii di ma digal naa xeex nii naxuñu ma. léegi fekk coach bi mu ma joxoon benn benn benn benn kele benn technique bu bon si xeex. ok waaw léegi def la ma da ngay mel ni kuy dem. Mhm. ba teg sa tànk beneen. ba mu ñëw nga fekk ko droite. rëg rëg boo xoolee coup bi ba muy daw di ma song. Mhm. dama ko dóor ku boo xam ne nii da doon wàcc. waaw yi damoon na si la lonku daw kor ma ba ma koree daw plaqué ma ànd ak moom daanu ci si ginnaaw saa koy aar bi jox ko victoire. sant ko yàlla xool leneen jël ñeneen jël 50 cent daan ko waaw mu jox ma ay silbalde junior yàlla def sama combat silbalde junior ma def combat bu et cetera. combat bu neex waaw combat bu neex am bëre am xeex waaw. kooku amateur ñëpp seen xol léegi nag léegi loolu yëpp passé na. fàtte naa ko mais am naa combat